ذكر والمدد ahlan wa sahlan wa tarhiban bila asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi si wul seen site internet bii di 24 actu comme ni ñu ko baaxoo di ànd ak yéen saa su nekk ci naafila yi ci lay nekk rakan bu ci nekk benn yoon xul yaa ayyuhal kaafiruuna ñetti yoon ñu baamtuwaat ko ñeenti rakan lay nekk rakan bu ci nekk fatiha benn yoon xul yaa ayyuhal kaafiruuna ñetti leen ci waxtu yi nga xamante ni ci lañ ñuy jàpp koor gi di nekk 5 heures 23 maanaam juróomi waxtu ci fajar bu taftale ñaar fukki minutes ak ñett waxtu dog yi di nekk 19 heures 25 maanaam juróom-ñaari waxtu ci ngoon bu taftalee ñaar fukki minutes ak juróom ñu ngi leen di jox di daje ba suba incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu riwal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban